aousubillahi mina sheytaan rajimi bisimilahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw benn sant yàlla julli ci yonantaam ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu waay man nag ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñaabone fii ci Daaru Salaam si waaw te ñu ñëw yéen ci aaya alxuraan bu wax sëñ Cheikh aaya bi nag yéen a ngi wax ci bëgg a yëkkati ko bëgg dox jëm kanam ak warafaanaaw bi daal mën na lu bëree bëri ci kuy lijjanti ay këyit jàmbaar la ci ku bëgg a yëkkati tamit jàmbaar la ci boo demee ci dëkk sax nag bëgg faa yokkute tamit nag baax na ci loolu am na noo koy liggéey yëpp naa ko leeral nag kon yooyu may déglu ci kayit yi laay njëkk bala ngaa bëgg ba yow mi bëgg ay kayit di ko lijjanti wala nga ne ci dëkk di fa lijjanti ay kayit dangay bind. wa rafanaahu makaanan aliyan 66 nga koy bind 66 nag mooy allahu bu ko defee da ngay dem nga wut suufus dëkk ba ba nga nekk bu dee da ngaa nekk Italie nga wut suuf sa bu dee da nekk France nga wut suuf sa nga boole ko moom nga def ca parfum saafraan baax na ci nga di ko sangoo boo koy sangoo te bu la neexee da ngay wut fu ko nga taxawoo di ko sangoo bu la neexee da nga sangoo suuf bu dee da ngay wut ay kayit baax na ci ay kayit képp ko def suñ borom mën naa la dimbali nga am ay parfois nag nit ki moom mbiram dëgër lu mel ni rab da ko yàqal wala affaire seytaan da yàqal ko waaye bu dee naturel la daal bu dee bëgg ngay kayit wala lijjanti kayit lii baax na ci trop yow mi lijjanti kayit bind ko 66 juróom-benn fukk ak juróom-benn mooy allahu nga boole ko parfum safran wala misk nga di ko sangoo boo ko defee ci kàttanu suñu borom suñu borom say kayit. ba tey war a faanaaw makaanan aliyan jooju yow mi bëgg a yëkkatiku mën nga ko bind tamit soixante-dix juróom-ñaar fukki yoon ba pare da koy def saafara waaye da koy sangoo boo koy sangoo nag mën ngaa taxaw fu kawe mën ngaa taxaw ci kaw bang waaye laa nga taxaw ci kaw terrasse lu mu gën a kawe daal mu gën a baax kooku tamit day yëkkati doomu aadama dana tax nit ki kawe dana tax nit ki tamit falu buy wut dara ku bëgg ko bu defee loolu tamit suñu borom mën na ko jàppale loolu lépp yomb ba tey nag bu la neexee mu nga wut daj dëpp gi mooy 1111 bind ko ko war a fanaa makaanal yéen jëfatu bind nag baat bi aay bi gàtt gudd boo ko bindee 1111 1111 tamit na ngeen xam ne mooy laa taxaw mooy lim boo xamante ne nii bul doo tiit doo jàq laa taxaw. kon 1111 bi bind ko ku war a a ma fanaaw makkaanaa aliyan 1111 boo ko bindee 1111 nga boole ko comme yooyu ñu la wax rek nga di ko sangoo parfum sax faraan wala misk boo koy sangoo tamit mën nga taxaw fu kawe kooku lu gaaw ci yëkkati doomu aadama la lu gaaw ci falu nit ki la surtout ki nga xam ne da ngaa bëgg place falu fenn wala nga bëgg ñu affecté la fenn boo ko def loolu baax na ci lool dana ko yombal. kon wala faanaaw makkaan naa leen loolu la ci mag ñi daan def nag alxuraan nag ma nga nekkoon fa mu nekk ba léegi waaye xamaa ñun moom ñoo nekkatul fi ñu war a nekk rek waaye alxuraan moom fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa kon wala faanaaw makkaan naa leen képp ku bëgg a yëkkatiku képp ku bëgg a lijjanti ay kayit yoon yëpp baax na ci kon ñoo leen di siyaar di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñi amana fii ci Daaru Salaam si waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu